ngi gàllaade mbër mum xeeñ ee eh, daw na jël ko ca suuf moom malaajo da koy plaqué ma nga ca suuf de Modou Anta defal ak soo balaa jóg oh xale yi daal baal ba muy jóg benn tàng nga yokk ko mboot na la plaqué la daan la malaajo daan na Modou Anta ba toog ca kawam jël ko waaye mbala na ne le waa buuna ngoogu abaa ngi nii xool ko mbër la xool ko tey moo sëriñ bi de jëlal abaa bu Mansour Mbaye tey préparateur physique la te moo fi bëre woon doomu jàmbaar de ca Moussa Ndoye ak Lac Rose eh Maladio ngay dem jëlal jëlal ay géwél lañ de eh fecc ba daju géwél ndaanaan la de kii mooy caat bu ngéwél dalal gin bu yoof waa gin ci loo nekk yow. waaye maa ngi si jàmm naka waar yi. yaa ngi waaw. mais lu waa gars yi ba léegi nii ñu ngi toog taaxiru rek. di bu doo ba tey waaw. ñu war a ñëw. mais daal ñun ñu ngi xaar rek. combat bu ñëw boo xamante ne bu baax la pour suñu ñu jël daal. yaa ma gën a xam waaw waaw. caatu a ngi nii. ndaanaan bu mag bi booy ci loo ne. waaw sant yàlla bu wér rek. yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi rek a ah, bëgg ndam di ñaan yàlla may ma ndam si kaw Fils de Zalo. est-ce la nag champion la wax dëgg yàlla mais maa ngi ñaan daal yàlla may ma ndam si kawam. mais bëre uh-huh. waaw. ana waa yow. ñu ñu dem nee na jëli de. nee na di yëkkatiwaat doyalut. doyalut de. Cheikh Bass dawal. nee na day kaw ba moom caatu ngewel. jël nga xale yi. ay ndaanaan lañ. dañoo mobiliser de jëlal lii oh Cheikh Bass jëlal lii jëlal waa Yoof ndeysaan Demba Thiaw ca Yoof ndeysaan Malick Niang ca Yoof Gim ca Yoof Jabel ca Yoof ndeysaan Caatu Ngewel ca Yoof Seck ndaanaan ca Yoff góor gi si jee ndeysaan may nuyu góor gi ci jee le grand basketteur <laughs> góor gi yóbbu na ardo léegi René Soros René ak góor gi góor gi ngay joxañaat mbokk yi ñoo nga noonu ndeysaan góor gi ak René Soros may bëggee mbokk yëpp nga xamante ni yéen a ngi bëggee wasaare làmb seen mbégte mooy suñu bànneex Ndeysaan Baye Djili sëñ Basirou ngeen ciy am foofu ñu leen di bégewaat bu baax a baax ñu ngi noonu ci combat dox ci diggante góor gi si Dieng ak René Soros Ndeysaan góor gi moo yóbbu léegi René Ardo <laughs> cey ñaari xale yi mbokk bu leen jaawale ñu ngi fii ci arène nationale ndaysaan Roni Soros ak góor gi ña ngay xoolante ci bët bëre waaw waaw arbitre attel góor baax na jigéen baax na waaye arbitre bi jigéen la ndaysaan looloo lay wan ni am na njariñ ci réew mi <laughs> arbitre bi arbitre mat làmb ji jigéen la ma koy dara jaale képp kuy jigéen rawatina suñu yaay jooju nga xamante ni mooy ajaratu nday soxna Konaté min Màkka min Medina <laughs> góor gi door na góor gi door na daw nañ jël tànk góor gi góor gi fañ la yegg sori na takk nañ ko Reni Soros na hee Reni añ na ko caxabal ba bañ na <laughs> ay góor gi Reni Soros kaay jege ko ñëwal nii góor gi résistance góor gi sa jaaxal sama mbëru xarit bee bëre góor gi sama xarit ba Binta mbërëm maay bëre mais takk fii lu fi mën a am baaji li fi mën a am bari na waaye possibilité bi renosoros am góor gi bu ko amee lamb ji jeex waaye góor gi am na wet de bu dee mbëru tànk la bu mbotee lamb ja jeex maa la ko wax baaji li kenn du yow ah arbitre boo leen laalee seen seen dal suñu kaw <laughs> arbitre arbitre waaw kay kenn gënu la ndeysaan da Réunion Sérès na ko andi ci digg géew bi bu ko bëggee daan bam ko jàpp baax na caxabal nañ góor gi caxabal wéer caxabal nañ ko daan nañ góor gi si jeen daan nañ góor gi ndayba daanu na góor si jeen ay Réunion daan na góor gi Thank you. àndandoo ak Xaddaafi Xaddaafi moo jàkkaarloo ak yéen nee làmb ji daa nar a gaaw nanu Xaddaafi Xaddaafi door na ko tànk Xaddaafi door na ko tànk ña ngay naanu naanu door na tànk Xaddaafi waa Xaddaafi lu mu nar nii lu mu nar nii jël ba daan na ko waaw Xaddaafi lu mu def nii Xaddaafi la tudd ndeysaan doomu Joof yor la. allahu akbar. amatina beneen ndaan. premier combat première victoire lii. xoolal lii muy. Joof yor. John Waar Jilaas kenn desul. kenn moom. ma nga noonu mooy Xadafi. ndeysaan Xadafi ngi noonu. cey yàlla. waa léegi xool leen nouvelle génération. ñun ñi xool leen mise leen ci ñun. gidma den fop bege a Diofior fop ñaanana fop jam ñaari doomu nday lañ Ibou Ndiaye Obali déedéet li mu def stade bi arène nationale grand combat rek la mérité xale bi cey làmb ndeysaan kott na ko ul jo cey làmb Basirou kii warul bëre lu dul grand combat lii fu ne nit dëkk jóge fa nii ñoo joor joof yor simla fu fa ànd xale bi di duudu saane ñu gën ba ngaa kontaanee nii. waaw noonu nga xam rek sa Diofior kii gañ séeréer ñoo gañe loolu rek bii lañ si am. est-ce war naa bëre spécial kii grand combat rek moo. waaw grand combat ñun ñëpp ay mbëru grand gañ parce que mbër yi bëre grand combat ëpp ñu ñu ginnaaw gis nga ñuy supporté kii ñoo may supporté barki Serigne Touba comprendre nga sa Diofior kii gañ te dama bëgg nga génnee ma ko autorité nekk suñu ginnaaw barki alxuraan kay xajuñ see sàpp. nañu gars yi jox grand combat xoolal bi xoolal bi. Eh, yëg nga am. Ah, merci kontaan rek kontaan rek comme que gars yëpp ñëw nañu gunge si ma gis nga lu ma am itamit lépp ñoom la munu ma dara xale laa damay dem. billahi loolu façon bëre bi nga bëre mën nga ma koo wax. ah façon bëre bi nga bëre ba daan. te du gis nga. xam nga nañu xool si vidéo bi commentaire man duma commentaire bu setee ñu wane set na bu setul ñu mën ñëwaat dolli yokkuwaat yokkaat ko. dañ ne ñëpp ci lamb ji tey da ngaa ba pare ñu ne kii warul bëre spécial grand combat rek la war a bëre. loolu lay dëgg lu ma indi tey grand combat yi sax indiwuñu ko lu ma indi tey grand combat yi indiwuñu ko nañu ñëw jox ma grand combat ma duy stade bi ba mu fees del billaahi foo jëm. grand combat. fan nga jëm koo ku grand yi dirigé rek man ànd naa ci man du ma du mbër. ku ñëw baax na. ku ñëw baax na. billahi. Eumeu Sène sama grand la. sama mag la. mais xoolal moom du ragal. du ragal waa Tay du ñu ay ragal. kon du dug seen ñoom tiit. billahi dañ maa yaatal. xajal ma ma ñëw planté wu seen biir. nekk xale bu ndaw. kon maa ngi écrit taay si nga. yaa ngi écrit taay si nga. maa ngi écrit nu mu waajee combat bi. Ah? noo ko waajee ak Eumeu ma koy waajee comme gis na lu ma indi lépp moom la. aw ma seen fay même as mi sax sama sama sama bi kii moom aw ma fayam chaque suba moo may yore saal. dinaa fa ñëw ñu gën a yaatu. damaa xeex benn naaw. daan na. pël door na. ay Diassy Peulh sa Diassy bi foo ko jëlee jàpp na ko añ na daan na ko Diassy Peulh daan na Plaignant xoolal ma ma mbooloo mi ma mbooloo mi Diassy Peulh Plaignant xoolal ma mbooloo mi Diassy Peulh Plaignant xoolal ma lu mu indi ci stade bi Diassy Peulh. Pato tey ñu lay dara jaal ci bis bi loo yëg.

mission bi ñu ci làmb ñëpp xam nañ ko mooy jëmal làmb kanam wàññi violence ci làmb fexe ba nit ñi xam ne làmb mën na nekk lu civilisé lu modernisé loo xam ne ñëpp a ci bopp daal loolu ñu ngi sant yalla bu baax daal di wax ni ñu ngi gërëm aussi Chacha Beauty Studio moom mi nga xam ne ni moo jàpp ci décoration vraiment amuñ fayam di ko ñaanal aussi waaw. jërëjëf Big Pato maa ngi leen di gërëm jërëjëf. Ndeysaan décoré nañ ko ma ngay sol yére bi. macha allah ndeysaan làmba ngi noonu ndeysaan bërek alaaji mbay tax ga yokk état de forme bi lii ay big pato ndeysaan macha allah rafet na yanj na ndeysaan caatu ngewal ngi noonu sëñ bas taxaw na ci benn birik sotteekoon na benn butéel butéel <laughs> caatu ngéwél a ngay sotteeku lekk lu mu ma cuuraay la xaw ma lu mu doon jëla ma ngi ko koy joxañ ma ngi koy joxañ caatu ngéwél wa lii lu mu doon hee ko koy visé mbaa du ko ko jam puisque làmb ja dina am ma ngay léemu ma ko koy jam di wax ma ngi ko koy jam di wax sëñ buy ba toj léegi kii mooy fils de doomu Zallo la <laughs> Ndeysaan Zallo ay baayam xale la boo xamante ni maas. caati ngéwél a jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan Wassare Lamb ñu ngi noonu ci grand combat bi Ama Events moo fi indi le premier février arène nationale Fils de Zalo moo la woon ginnaaw Caatu li moom ngeen jàkkaarloo arbitre bi sifflé na moo daan da day gaaw ma ngay dox ci koom jël na ko de Zalo jël na ko de Zalo jël na lu muy def daan na wala déet daanu ko génn nañ saako yi wala déet Fils de Zalo daan na ko déedéet ah. déedéet lu arbitre bi wax lu arbitre wax lu arbitre wax lu arbitre wax lu arbitre wax lu arbitre wax lu Fils de Zal Caatu Ngéwél bi Fils de Zal fi mu yegg Caatu Ngéwél gi moom rëcc est-ce que dina ko fa yeggal waaw euh, jili boo xoolee osé bi mu osé ak euh, lim ko mayul dara dox ci kawam loolu rek bu ko confirmé waatee da koy daan jël bu moom fils de Zal parce que ni de démarré nii dafa woon caatu ngéwél gi ne ko dàqoo ma bëre ëppoo doole te aw ma lu may tiit ci yow loolu la wane te bu ko confirmé waatee da koy daan jël bu rëy. de Zal caatu ngéwél gi. ña ngay leewaatoo xeex na fils de Zal ngay dóor ña ngay dóor parce que dóor daanu kaawoo kaawoo kaawoo protestant wattu am na protestant bu am na protestant bu jiili na prothèse daabu de ay waay jiili bébé kar mi nga yor ay waay la ko dañuy bëre fils de Zal yàpp na prothèse daabu rek kan lañ arbitre prothèse da arbitre prothèse ko dimi fele soo ba ko tibb fils de Zal jàppante nañ <laughs> atte kay ana sa président Ardo ana sa président Ardo tere fils de ay jaatu njool gi ndeke macha allah ku lu kuy géwél kontaan nga sa la waaye est-ce fii wàllu bi di mu jéggi bëtam fils de Zal jaatu gi. Baye Djili dama bëgg fils de Zal mu def ndànk ci caatu ngewel bu ne la maa bëreeg Ada Fass maa bëreeg Boy Diop maa bëreeg Djigo Zilo bëreeg Sabala rek loolu doy na nga def attaque ci jom moom waaye kii di Sidy Salo dafa andi confiance bopp donte nag ci victoire la jóge diggante mag doomu jàmbaar am na ay victoire am na ay défaite bu ma juumul moom Sidy Salo trois défaites Yankaw Junior a ko daan ak xale bi nga xam mooy Djigo wala xale bi nga xam mooy Sabala ak ki nga xamante ne ndeysaan mooy xale ba nu mu tuddati waay fan lan bëreeti jël bu rëy ba Yankaw Junior daan na ko jël bu rëy kii di Fils de Zalo wala kii di Caatu Ngéwél fii la bëree nag Ada Fass gis nga combat boobu moo déclenché Ada Fass deux défaites la am moom ki nga xamante ne nii mooy Caatu Ngéwél gi boo ko gisee da nga amul doole nag mais nag góor bala nga koo yeb ñam ko daa mel ne am na lu xew de. am na lu xew damay ragal làmb ja. mbaa du mujjee par décision arbitrale lamb ji damay ragal mbaa du mujjee par décision na ca ardo de xaw ma nu. na ca arbitre moom ardo de Zal. fam ko door moo garaaw. coup yi mu recevoir ci combat bi. daa yàgg ci combat bi. jëlee caatu ngewel caatu ngewel. parce que caatu ngewel. <laughs> papa ji papa ji Zallo bas kaay bas kaay wooy protestant bu réer lañ doon seet. Ah. waaye mujjee nañ koo gis. jigéen a koy arbitre laaj na ay siisam. ndeysaan góor baax na jigéen baax na arbitre bi suuf la waat na. caatu ngewal. fils de Zal fils de Zal moo leen féete ginnaaw. caatu ngewal ngeen jàkkaar lool. Malick Niang andi ko. fils de Sallo baayam Sallo andi ko. góor balan ñam ko. fils de Sallo doxatu ci kawam de. Zallo daa bëgg a dox ci tànk yi la jëm. Caatu Ngéwél bëre bëgg bëggul xeex. Caatu Ngéwél ci tànk ba la jëm. na xeex nañ. Liss de Zale door na. ma ngay jëli. bañ na wàccaat na. hee Fils de Zale. ndeysaan bi ñaari xale yi joxe nañ lu ñu am. mbot. déet. mbot wala biit. Fils de Zale du yomb jiili. na nga ca ba tey de. fii de Saalum combat bi ku ci daanu jël bu rëy ngay daanu. parce que ñaari garmi la ñaari technicien lañ. fii de Saalum dimi felek soo xar ko la bëgg a def. te caatu ngewal xam na loolu. caatu dafa sangu mee nelawut. ndeysaan Fils de sol na ko. takk na ko bul forcer Fils de bul forcer. force bi nga koy force gënul ci yow arbitre bi attewaat na ah Fils de Zal day demaat demaat na Ardo Ardo Fils de Zal dem na Ardo Ardo ba tey Caatu Ngéwél yóbbu na ko Ardo ñeexaatu foofu rek doom delloo fa sam loxo Caatu Ngéwél door na ko kuubu dal doomu Sallo bi dem na Ardo yàbbi na protestant bi dem na fekki baayam ca Ardo ba mu koy xaar réeral na protestant ba ndeysaan coonaa ko dugg coona ma xam ne protestant duñ fekkee coono borom <laughs> Caatu Ngéwél am na lu mu sànni arbitre bi sifflé na Ciss de Sale tafal nañ ko R4 ba ndeysaan sama xel dem na ci Eumeu Sène ba muy bëree Gris Bordeaux lu mu sànni Eumeu Sène Gris ba nii la ko tafe mars nii la demee woon de ña ngay ñoom ñaar na fi mu toll nii ku ci nekk day déglu sa morom écrit Yoff kii écrit Cheikh Mbaba fils de Zal Cheikh Mbaba la ne ndeysaan caatu ngewel li ndeysaan écrit Yoff la ne gis naa Malick Niang indi ko moo lay wan ne am nañ ci xale yi yaakaar ko wax foo dem Malick Niang indi kii kii papaam Zal loo indi ndeysaan xoolal loolu xam nga Demba Thiaw Yoff ak Cheikh Mbaba baa ngi nii ci fils de Zal ak caatu ngewel ña ngay lewaatoo Fils de Zal moo lay woon ginnaaw ndaysaan caatu ngéwél moom ngeen jàkkaar lool sëñ Bas ña teggi tànk cey lamb ñoom ñaar Fils de Zal daa yaakaaroon bu jëlee combat ba jeex ña xeex jël na tànk ba jël na tànk ba takk takk na ko mbaa dina jeex yëkkati Fils de Zal taxawal na caatu ngeewal li bañ na Fils de Zal eh jugaat nañ la ilaha illallah mbaa du la mbot Fils de door déet caatu ngeewal toog na Fils de Zal toog na Caatu Ngewel daan na Fils de Zalo Zalo na Caatu daan na Fils Zal toog na jógal dem oh. dem tukki ñoo jël sama wàll si làmb ji Fils de Zalo dama koo duma maa ko gën a doon bandi man waga laa mbayaar laa mbayaar laa dégg ko xale yi mbayaar du man mbaay mbaay tey jii nii lamb ji Fils de Zalo fi ma toll fi ma tolloo toll ku xam lamb xam ni bu doon damay bàyyi rek damay daan mais lamb bi tey jii nii bi may génn barki Seydina Mohamed damaa jooy. sa tànk bi nga koy jox moo ma jaaxal chaque fois bu dawee jël sa tànk nga bàyyi ko. xamul loolu sama waa Ikiri xam nga kon kontaan ay kii nii yàq mi kii maa ngi koy gërëm kërëm Bambilor falaa pere lamb ji ba tey maa ngi koy ñaanal jàmm sama xarit la barki Seydina Mouhamad. dëgg la wax waxagoo ko. non sama tànk man damaa mën a bëre. suba ñëw leen yoof seet si ma. wala ngeen ñëw ñu ànd yoof. yoof mu may.